li règlement bi nangu ak li mu bañ ndaysaan consulté na ay siisam wax ñaari mbëri sifflé na Ibo ndaysaan ak Mame Balla Junior Ibo moo ñëwoon ginnaaw Mame Balla moo jàkkaarloog ñun ah Ibo yëkkati ay supporteram Ibo bu Kër Mbay moom ngeen woon ginnaaw Mame Balla moom nga jàkkaarloog waaw der ñu ngi leewaatoo tànk gauche Mame Balla teg droite ñu fas yéene bëre ñoom ñaar. ñu ngi leewaatoo. ndaysaan combat bu garaaw ñoom ñaar. Mame Balla ak Ibo. kii kër Mbaye Fall la jóge. waa kër Mbaye Fall uuf ko. ànd ak moom. tooñ na ko léegi. mu war a bëre ak Mame sànni na waaye. dinañ xeex wala déet. Ibo Mame Balla. Mame Balla ca kas dóor mu daanu mën naa am ci combat bi ndax ku dëggal sa bopp ci wàllum xeex. surprise mu naam Ibou fayu na. Ibou mambal la. Ibou ngay seere la pataake bi. Ibou mambal la ñaari ndaanaan lañ. Ibou ak mambal la ña ngay bëree. Ibou ak mambal la junior. Ibou mambal la. dóor na Mame Balla da ko bëgg jàpp Ibou la patak ba lay seere ma ngay dóor Ibou xanaa dañ koo dig dóor mu daanu xeex mais xeex ma ngay dóor dóor ba baaxul sori na jàppante nañ Mame Balla téye ñoom ñaar kenn amul ngemb Mame Balla Ibou wax na Ibou duma a ñu ndandi ñaari mbër yaa ngi Ibou ngay dóor ci suuf Ibou ngi dóor bàyyi ñaari loxo di xeex wóorul ñaari loxo kenn ko bàyyi di xeex kaaw dina am kaaw dina am kaaw dina am Mame Balla ngay dóor Ibou ngay fayu te Ibou bu fayoo Mame Balla am li mu bëgg ndànk Mame Balla ndaanaan la lamb ji macha allah bëre ñoom ñaar Mame Balla ndengeeñ bi baax na. Ibou ngay fayu. ñu ngi téyante. ndaysaan lu nar a xew supporter yaa nga yuux. waa Alboury a ngi noonu. Alboury dafay ndaanaan. saan si Père Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gisee ñaari xale. ngi TNT bon <laughs> ko gisee père jeex. ndeysaan. Ibo mooy wax noonu. xeex nañu xeex bu sew léegi. Ibo Mamballa. Mamballa ngay dóor. ñu ngi xeex. ku ye dal na Ibo ngay fayu. Ibo ak Mame Balla fàq na ko mu rëpp delloo si na ko fàq na ko ñu rëpp ànd kenn ña ngay xeex génn nañ saako yi waat na tooj la toj na dem na ci ardo ba bisib na mbokk yi Mame Ibou ngay dóor. oh kawate na dóor na ko daanu wala déet. oh dóor na ko kubu dal mu kawate. Ibou Mamballa. ba nga ba fayu. Ibou Mamballa. ñi ngi xeex ñi ngi xeex. dóor mu daanu lu ma la waxoon. dóor mu daanu lu ma la waxoon. dóor ña ngay xeex Mamballa du bàyyi. du bàyyi. xeex bi metti na Mamballa Ibou. oh Mamballa demoon na Ardo. Ibra nee na de. Ibra nee na xale yi muy. nee na xeexam moo gën a aw yoon parce que kay dañ ko tuuse mu bëgg a xaru na day fayu boobu bëri rek la waroon def. mbokk yi arbitre waat na Mamballa ak Ibo. ndeysaan Mamballa numéro ak Ibo bu Kër Mbaye. Mamballa jóge na ardo dëbb na sol léegi xëy na mu bàyyi xeex. daw nañ jàppante waat. Ibo nanguwul ñu ngi téyante. Ibo Mame Balla Mame Balla Ibo Mame Balla Ibo ñu ngi téyante yëpp bañ Mame Balla fi mu jàppoon baaxul ci kiw bi la jàpp ñu ngi téyante tànk jege na de wala déet Mame Balla ak Ibo caxa bala ngay xeeñ ma ngay dóor Ibou ngay door mi ngi door. Ibou ngay door ci suuf. Mame Balla ak Ibou. Mame Balla ko mu doon ko ci suuf. war ko ndombo Mame Balla ko. Mame Balla daan Mame baala daan na Ibo Mame Balla daan na Ibo